man nga ne ziar bi tamit dafa alaa daw mi ndax ziar boo xam ne nii turu yenent bi la tollool ci lim tolloog téeméeri at yu Maodo tëddee ci biir suuf tolloog téeméeri at yu Serigne Babacar si toogee ci xilaafa gi tabaarakallaahu moo tax mu mel ni mu mel ren nga xam ne ziar général yàgg na fi am waaye bi nu bu ni mel nag ci mbooloo ci ndaw ñi rawatina gëj na fi am loolu ku ñëw ren li ma ko waxee léegi ci télé bi daa mel ni dañu boole gàmmu ak ziar général asura mbooloo yooyu yëpp lañ boole tey mu nekk benn bis hmm. dafa mel ni dañoo dajale mbooloo yooyu yëpp mu nekk benn bis liñ ciy jàngatee nag mooy liggéeyal yàlla rek a wóor hmm. liggéeyal yàlla rek a sakkan hmm. liñ ciy jànge yin mooy li samp kër gi ndekete duy pexe waaye saf yàlla la sëriñ Cheikh moo doon wax ne bari pexe saf yàllaa ko gën may faral di wax ne nit mën nay naxe bi muy dund waaye di naxe nag ba dugg biir bàmmeel di naxe mënul nekk kuy naxe ba ngay dund booy faatu naxe jeex waaye lii di xew ci ëtt bi day wan ne ki sanc ëtt bi wala taaral ko gannaaw biñ ko sancee muy Cheikh Al Hadj Malick mu nekkoon dëgg la looloo tax yàlla di ko fayee ba tey mag ñi ndaw ñi góor ñeeg jigéen ñi di bàyyeekoo fu nekk fi mashariqil ardi wa magharibiha ñëw ci suuf su tedd sii nga xam ne ci suufas yàlla yi la bokk yi mu tànn suuf yëpp yàllaay borom waaye nag am na ci suuf yooyu noonu la yu mu beral ngëneel te suuf si ci la bokk suuf su yàlla tibbu bind alxaaji Malick suuf su yàlla tibbu bind sëriñ Babacar si suuf su yàlla tibb bind Cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour suuf su yàlla tibb bind Cheikh El Hadj Abdoul ak ñi ci topp ñëpp suuf soosu yàlla barkeel na lan moo tax ma ne suuf su yàlla tibb hmm. mooy sax na ci téere yi ne hmm. nit ki bu mu faatoo fuñ ko rob ba ko yàllay bind suuf soosu noonu leen la tibboon bind ko hmm. moo tax bu faatoo fa lañ koy denc moo tax suñu borom ne min ha xalaqnaakum wa fiiha nuidukum wa min ha nuxrijukum taaratan uxra yàlla bi muy bind dafa tibb ci suuf bind la boo faatoo fa mu tibb lañ lay delloo booy dekki it fa mu tibboon bind la nga faatoo fa fa ngay dekkee pour wuy ji yàlla kon suuf su ñii ma tudd ñëpp yàlla tibbee fa bind leen ñu faatoo fa ñu denc leen fa ëllëg yomal xiyaam ñu war fa dekkee suuf soosu nag mbir nga fa te mbir moomu nekk fa nag defe naa moo tax mbooloo yi boobu ba léegi mm. wàññeekuwul mais day yokk ñëw di barkeelu ci barke boobu yàlla def ci suuf si ma daanale sama kàddu wax ne nañu góor góorgóorlu nekk ci yàlla nañu góorgóorlu liggéeyal yàlla xam ne yàlla rek a sakkan wasalaamu aleykum